Merci de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Inglénu, di nuyu les membres du gouvernement rawatina ministre bi nga xam ne moom moo jiite lii di monsieur Mansour Faye nuyu tamit le gouverneur de la région de Dakar nuyu les préfets nous, les honorables députés, les conseillers du Conseil économique, les membres du Haut Conseil, mairie, adjoint mairie, nous tamit le directeur du CETI et la zone. Nous suñu partenaire yi waral lii nuyu waa Géejawaay mag ndaw ku ci nekk ndomba tànk bi nga am imam le clergé les délégués de quartier balaa maa tàmbali monsieur le président de république ci turu Guédiawaye gépp ñu sant la gërëm la ci réalisation BRT bi bus rapide transit bii nga xam ne jaar na Guédiawaye fii la départé te fii tamit la terminus bi nekk gën naa jekkal nag karkanamu suñu ville bii ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo toog ci toogin woo xam ne bu taaru la am kaaraange waaye tam sakkanal seen boos ak seen temps son excellence monsieur le président de la république bisu tey bii bokk ne Guédiawaye nga xam ne li muy yóbbu ci ay doomu aadama xam na tam man nag en tant que ñu sant l'équipe sortante li nga xam ne ñoom ñoo ko door mooy le préfet lii nekk tey Dakar de Mohamed Blondin Ndiaye ak l'ancien maire Moussa Aliou Sall ak tout son équipe li nga xam ne moom la ñu ñàkk nag balaa maa daaneel président de la République son excellence doléance ndaw yi mooy wàllum xëy mi lu BRT gën leen a yokk ngir ñu am liggéey ci lii ndax mbir mi fii la jaar ñu jël ñu sant ñëpp gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina